fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem garage taxi yi nga xam ne ñoo ngi fii ci biir Touba. sunu teewaay fii ci Touba daal li ci njëkk mooy sant sunu borom bu baax sant sëñ Touba Cheikh mi nga xam te moo nu boole ci dëkk bi ba yàlla dogal kuréel bi mel ni Touba kanam ñëw am taxawaay boo xam ne murid yëpp ak waa adduna yëpp xam nañ ne kuréel la boo xam ne dafa jóg ngir taxaw sëñ Touba mi nga xam ne euh, ku mën a taxaw rawatina dëkkam bii nga xam ne lu rafet ak lu baax ak lu jekk daf war a bëri lool. Touba ci kanam nag di kuréel boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne li nga xam ne mi ngi koy dajale di ko jëlee ci murid yi mi ngi koy delloowaat ci dëkk bii nga xam ne dëkk bu ko yayoo la ñun ñu de ay taximaan yàlla dogal ko wax taximaan xam ne nit la ko xam ne dafay jaxasoo ñu bëri di dem fu bari di wax ak ñu bari ñu ne nag nañu ñëw ngir ñun tamit euh, indil sunu ndimbal ak sunu jàppale ci Touba ci kanam ma xëy na sax mën nañ ko bañ a waxee noonu ndax Touba ci kanam ku ci jàpp sa bopp nga jàpp ku leen jàppale tam sa bopp nga jàppale waaye ginnaaw sunu mbir la ñun ñëpp ñun taalibe mu murid di ak ñëpp ñi nga xam ne ay sénégalais ak ñu dul sax ay sénégalais ndax Touba ci kanam li mu naa la def ci dëkk bi adduna yëpp ñoo ci jariñu ndax Touba dëkk la boo xam ne adduna yëpp ñoo fi ñëw kon mbirum waa adduna yëpp la ñu ne nag ñun taximaan yi nanu ñëw ngir indil Touba sa kanam ñu nit suñu participation li ci njëkk mooy fexe ba am ay bolog yu doy yoo xam ne dina dem ci garage yëpp suñuy soxna suñuy waajur ak chauffeur si boppam ñu di ko dagg mu ñëw ci ci kanam wa ci walu support de communication itam lu ci mel ay affiche yo xam tam fay dem ci taxi da fay dem ci mbaru taxi ak bépp mandrag bo xamni dal daal ñun taximaan yi mën nañ ko jël ci Touba ci kanam ba fépp fuñu dem ñu xamni ñun ñu japp ci Touba ci kanam lañ fépp fuñu dajé tam ku fa ñew xamni ñun dañu and ak Touba ci kanam lolu moy li nga xamni mom lañ ñewon tay doon ko waxtaan ak Touba ci kanam ak it suñu métier mi nga xamni ban na lo ñu ciy raaxaloo taxi itam ku ne xamni ne melul lu mu wara mel comportement itam des lu bari te ñu gis ne Touba ci kanam liggéey mbokk na ci fexe ba Touba am ay taxi yu jag yu méngoo ak Touba waaye chauffeur si tam ñu defal leen ay formation ba ñu am tam ay comportement yu rafet yoo xam ne dana méngoo ak Touba loolu tam moom lañ doon waxtaane ak euh, ki nga xam ne mooy président bi ak le secrétaire général ak commission massificative ak seen njaxate mi nga xam ne moo doon def tournée ci garage yi ba yàlla dogal mu ñëw ci ñun ba loolu sabab ñu àndandoo ñun ñëpp euh, ñëw teewal fi fanweeri garage ak juróom benn ñoo fi ñëw ci turu taximaani Touba yëpp. Euh, ñi nga xam ne tey ñoom lañ doon toogal doon waxtaan muy euh, regroupement chauffeur taxi yi nga xam ne sëñ Pape Seck ñoom moo leen jiite ñu nekk fii ci biir Touba. Euh, mu am woote boo xam ne nag sëñ Abibou Mbacke moom Cheikh Mamadou Fall daf ko woote woon ci Touba ci kanam muy ñaari million nga murit kenn ku ci nekk nga joxe ñaari nga joxe ñaar téeméer weer wi ñu mën a am 2 milliards at mi ñu am 24 milliards. Euh, woote boobu nag euh, murid yi am na ñu ko dégg ñëw am na ñoo xam ne dégg nañ ko ñëwut am na ñoo xam ne ñu ngi koy soog a dégg ñëw nañ euh, yàlla def ci tawféex nag biñ màgg léegi-léegi gis nañ ne ñu bari tàmbali leen di ñëw ginnaaw bi ñu gisee Touba Ca Kanam tàmbali di def ay réalisation ndax bërki démb rek opérateur économique yi ñëw nañ fi indi benn enveloppe bu 2 millions ngir tàmbalee ko ci biir liggéeyu Touba Ca Kanam chauffeur taxi yi tamit ñoom ñëw fi ngir fas yéene ànd ak ñun euh, liggéey bii di liggéey Touba ca kanam ndax Touba kanam euh, taalibe Sëriñ Touba la euh, kon nag gépp kuréel goo xam ne yaa ngi nekk ci dëkk bi moo xam nekkoo ci dëkk di yëngu rek Touba kanam mu ngi tàllal loxo kon nag ñoom ñu ngi rafetlu bu baax seen teewaay fii waxtaan nañ waxtaan wu am solo ci nan la ñuy def ba képp koo xam ne taximaan nga nekk ci biir dëkk bu sell bi Touba nga bokk ci biir Touba ca kanam yàlla def na taw feex ñoom organiser wu nañ ba pare def ay garage tey ñi fi ñëw 36 garage ñoo fi ñëw garage bu ci nekk euh, taximan yu bari ñoom ñoo ko composé kon ñu ngi am rafet njort bu baax euh, ngir ànd ak ñoom liggéey bi euh, niñ ko organiser nag mooy ñoom seen biir wax nañ leen ñu tànnal ñu ñaari nit yoo xam ne dañuy ñëw bokk su ñun su ko defee ñu toog ensemble ñu waxtaan ndax bépp jafe-jafe boo xam ne am na ko moo xam si secteur transport la moo xam si secteur santé bu mu ci mën di doon danañ toog waa kuréel yooyu toog waxtaan ak ñoom waaye nag wax kilifa ñu toog waxtaan su boobaa lépp lu ñu ci tënk rek incha allah danañ ko leeral askan wi yëpp ndax Touba Ca Kanam moom du jëf lenn loo xam ne antuk ndigalu sëñ bi lépp lu ñuy mën di jëfit danañ ci waxtaan ba juboo ci dem ci ki nga xam ne moo fi nekkal suñ Touba leeral ko ko su boobaa ndigal lu ñu jox rek ñu jëf ko waaye incha allah fas yéene ànd ak ñoom ci fexe ba euh, ñaari millions murid yi ñu bëgg euh, taximaan yi ñëw ci fekk fexe ba 2 milliards bëgg ñoom seen alal dugg ci su boobaa ñoom secteur bi nga xam ne ñoom ñu ngi ko yëg muy wàll transport ci Touba ndax Touba Ca Kanam moom li ko tax a jóg mooy développement Touba Touba nag képp ku koy wax ci développement transport da caa jiitu kon nag danañ toog ñoom waxtaan euh, seeni i jafe-jafe ak yan solution lañu mën a def ba Touba transport bi mën a méngoog ak jamono. fee ñu toog ci waxtaan ensemble bu boobaa lépp lu luñ ci tënk comme solution bu boobaa danañ ko gaara ba ñu xam ne nii lay Touba ci kanam fas yéenee doxe ak ak taximan yi waaye actuellement daal fi nga xam ne moom lañu toll muy fexe ba bépp gaaraasu taxi boo mën di dem. Euh, da nga fa mën a euh, barkeelu ci Touba Kanam da nga fa mën a xamee Touba Ca Kanam ñoom ñu nekk ay membre Touba Ca Kanam yoo xam ne danañ mën a véhiculer message Touba Ca Kanam ndax ñoom ay ñu immobile lañ tooguñu sur place taximaan yi Touba dañuy wër même bëgg nañ seen oto yi ñu def ci affiche Touba Ca Kanam ba ci seen rajo oto yi oto bu ci ne ñu jox benn clé USB boo xam ne dañ ci defaale euh, Touba ca kanam nga xam ne ku dugg mën na dégg Touba ca kanam boo ci bëggee barkeel taximan boo dugg bëgg nañ ci Touba mu am blog boo xam ne ku bëgg barkeel Touba ca kanam mën cee joxe yaakaar naa bu ñu ko àndee rek incha allah waxuma la taxi yi rek waaye ba ci ba ci charrette yi ba ci ba ci ñi yore tataa yi ñoo ñëpp incha allah bëgg ñoo jotaay ak ñoom bañ xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey muy Touba ca kanam secteur bu ci nekk ñëw indi sa participation bu ñu ko boole rek incha allah li bëgg ci dëkk bi dees na ko